jógal far li ngir yaa ngi ci bu lool li yow teeb lool li buy wéy amusul fi jafe njëgam mu réere nga bu lool li lool lee nii wéer ak dund ak doole lool lee jafe ku sab lool li ñëw nag ba say yëfu ni xos la gën ngay ku yombul kumaasam jafe jëfal guddi jëf bëccëg ak sépp ba ko seeru naa kii jëfam yee jafe ku def nii ci sab lol doo jee lëlëf bu nooree te doo xaare yeewoo jafe bu dul kon nga nelaw koo fu gis ma ngay farlu ngir xam ni lee jëf jafe ku jëm cib ja tey romb xaalis di wey bu yeggee di gis yëf ya teg njëg jafe bu nit nee lasar ñépp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat lee dërëm sax jafe ngoor mooy loo ëmbuti xaju ci say loxo ngay ngay fegat ngir lépp mën na ci biir euh, li nga xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngirug mag akug ràgg ak dee ngi ñëw bu ñuy yekk si defu lëfu lu bon bon jafe defal yàlla lëf bu mujjee jafe amas lëf ci yàllaati gën koo jafe